aoudubillahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba nu leen nuyoo ziyaara leen ñu ñëwaat ak yéen ci seen jataay yu am solo yi te nag suñ bindu tay bi ci sarax lay wax as-sadaqa waaw sarax nag mbokk yi eh, dafa am njariñ dafa am njëriñ njëriñ loolu mu am nag tax jullit yàlla bis bu nekk ak fu mu toll ak ci lu mu toll mu di ko ci xiirtal ndax euh, képp koo xam ne bari na lu muy sàrxe du gàtt fan wax yonent bi la sallallahu képp koo xam ne bari na lu muy sàrxe du ñàkk képp koo xam ne bari na lu muy sàrxe du dee dee gu ñaaw képp koo xam ne bari na lu muy sàrxe du gàtt fan waaye képp koo xam ne bari na lu muy sàrxe du am gàcce ci mbooloo waaye képp kuy bari lu muy sarxe lépp lu mu am yàlla subhanahu wa taala dina ko sàmm ba du ko ñàkk sarax nag bari na ay formule waa dimbali sa moroomu jullit ma ngi ca azaka ma ngi ca zakatul fitri ci la bokk yooyu yëpp daan ci ñëw buñ ci nekk ci bosu boppam waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane bokk na ci ngëneeli sarax as-sadaqa taj'alu al-malaa'ika tad'u bil khalf ala al-mutasaddiq allahumma a'ti munfiqan xalafan euh, wax nan ni képp koo xam ni mi ngi sarxe malaaka yi du ñu deñ ci di ko ñaanal yàlla a ah, diw mii kat seex saar mii kat lii mu sarxe yàlla na ko remplacer allahu akbar waaw tey nga dindi ah fekk nit mu ngi liggéey mi ngi sonn waaye am am demeewul noonu nga dindi ci sa poos lu am solo ni ko am dindi lu am solo ci sa poos ni ko am su ko defee nag loola soo seetloo day dellu siwaat alquran wax na ko ca lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuun yàlla nee na du ngeen am mbaax ak yiw lu may dangeen di joxe li ngeen gën a bëgg foofu nag jàngat bu yaatoo nga fa mbokk yi kuy sarxe day sarxe li nga xam ni moom la bëgg su dee lekk li nga xam ni moom ngay lekk nga sarxe waye budé ñam nga yek lek ba mu dess yax yak yooyu nga joxe lolu do am bax wala ngay joxe xogn ka ca ceeb ba do am bax wala yeneen yo xamni tay ji soy joxe da ngay bàyyi rek ba sour wala ba sa xel dam lolu du joxe mbax mo dal alquran ni lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun lu muy da ngeen joxe li ngeen gën a bëgg yàlla ni nag moom yàlla mi wax wa ma tunfiqu min فإن الله به عليم لب lépp lu ngeen joxe rek man yàlla xam naa fi mu toll ci yéen allahu akbar nga ñëw fekk mbir nga joyyanti ko defar ko ba mu mel ni gën a ni gën bax tay nit ki mën nañ ci jël ben benn euh président de la république xolal ku dem ci keur ëttu diine xam ni yow tey kenn ku ne ci ñun buy tabax kër da koy tabax ci anam bu mucc ayib anam booba nga tabaxal ko nit def ko te yàlla rek tax allahu akbar wa ma tunfiqu min cheyin fa inna allaha bihi alim ah tey kenn ku ne xam na ni buy tabax kër bëgg na ci mu luxe bëgg na ca mu am salon yu mucc ayib bëgg na ca ay kilim bëgg na ca bëgg na ca yow nga defar yu ni joxe naa ko ngir jëmmi yàlla subhaanahu wa su ko defee nag doo ko ñàkk yàlla na yàlla di la ko gën a mën loo kon lépp lu nuy joxe ci sarax du wut rek da ngay jël sa poos génn fukki dërëm joxe déedéet da ngay xool nit ki li muy soxla bu dee koy dépense nga dindi junni ni ko am defal dépense bu dee ko soxla dëkkuwaay nga defar dëkkuwaay ba mu àgg ni ko am bu dee ko soxla lu muy defaree ay mbiram ak ba mu mucc ayib nga def noona loolu lu lu lu lu mat a bàyyi xel la jékki-jékki dimbali nit ñi jàppale leen taxawu leen yooyu yëpp ci ay xeeti sarax la kon mbokk yi loolu mooy li nga xam ni yàlla nañu ko yàlla def loolu surtout ci weer wi surtout ci weer wi nga xam ne am na ñuy woor xamuñu lu yàpp di jar mësuñu am njëgam nga dem peese ko ñëw jox leen wala sax nga ñëw rey nag tojat ko sa wërsëg may na la ko séddale leen ko ñoom ñëpp su ko defee yooyu sarax yu ama ama am solo lay doon dimbali néew ji doole ji defaral leen fu nekk defaral leen defaral leen fa tabaarakallaahu yal na ko yàlla mën loo jullit ñëpp kon mbokk yi sunu fukkeelu guddi ak ñaar sunu fukkeelu guddi ak ñaar fukki raka lay nekk dix raka cinq sëlmal maanaam fukki raka ñaar yun toll sëlmal raka mu ne na ngay def benn fatiha benn fatihatul kitab ak six qul huwa allahu ahad allahu samad ba mu jeex ñu ni soo ko defee yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko nangu su ko nangoo di nga ci am jun yoolu junniy këri aljanna ah yoo xam ne ay étage lay nekk nga xam ni bu la yàlla nangulee sa famille ku ñëw aljanna rek yow sax mën nga ko dalal fa tabaarakallahu loolu lu ama am solo la ak yool yu baree baree baree bari yoo xam yàlla rek moo xam nu mu toll kon mbokk yi yàlla nañu ko yàlla def loo ñu bañ ci di tayal nag di ko def yàlla laq na ci xéewal ak i njub ak i wërsëg yu yaatoo yaatu jaalana allahu min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsanahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu